nuyu di leen ziar ñëw ci Arda Güler bi nga ne mi ngi nekk jeune turquien ci club bu ñu wax Fenerbahçe mu nekk club boo xam ne euh, mu nga nekk fële ca championnat bu Turquie xale bi nekk euh, turquien mu nekk joueur boo xam ne Barcelone bëggoon na ko sori lool euh, ci dossier bi mais dañoo wax ne Real Madrid dafa ñëw mel na lu jaay Barça doole jënd xale bi kon doole doxul jàmm dañ ñëw ci loolu leeral dossier bi mais laataa loolu dañuy wax yéen ñi gan ci page bi ngeen abonné te ngeen bës ko notification bi pour ngeen am ay vidéo au temps fii ci notre boor sama gaa yi xale baa ngoog euh, seen turquie bi mu nekk jour boo xam ne jour bu man lañu def la euh, Barcelone ak Real Madrid man yoon ñu ko bëggoon Barcelone moo ci gënoon a sori sax ba ñëpp jàpp ne saison prochaine xale bi jour Barcelone lay nekk mais Real Madrid daal moo jóge fële daf benn offre boo xam ne offre bu ko am doole la offre bi muy toll ci 20 millions de euros ci la jëndee xale bi nga xam ne mooy gën turquie bi. Barcelone toog di seetaan banque seen loxo maanaam Barcelone boo xoolee dafa mel na dafa mujj lâché bàyyi xale bi à côté xaw ma nag ah, da leen jërlu li li ñu ko bëgg a jaayee xaw ma tamit dañoo gis ne liñ ko war a mën a jënd war nañ ca mën a yokk yeneen jënd ci yeneen xale yu a tàng loolu lépp jàpp naa ne daañu ca may leeral bu ñu koy li nga xam ne mooy information yi. yi ñuy suivre ma pour ngeen abonné ngeen commentaire ngeen partagé ngeen xaar ci yeneen vidéo ak yeneen numéro ak yeneen jàngat merci beaucoup am ngeen jaajëf bu. Barre, barre, barre. ou en baax de commentaire partager merci chez gars